am ci dëkk bii di Touba te ñun keroog bi nga xamee ne Serigne Abdou Lahad la nga xam ne seqoon na ko président Abdou Diouf te ñëpp xam ne ak dëggoom ñëpp xam ne liggéey bi mu liggéey ci dëkk bii di Touba kaddu ya nga xam ne waxoon na ci taal bi yëpp ngir loo xam ne ni Abdou Diouf jàppale woon na ko ci liggéeyam seen Tuubaa sëñ Fallou wax na ko léegi nii ñépp xam nañ kàddu yi nga xam ne seex Cheikh Mouhamadou Fadel waxoon na ko ca loolu sama turandoo sëñ Modou Bousso Dieng moo ma ko wax ma dikk ne keroog ba mu koy jox fanweeri ay fanweeri junni la ñaari fanweeri junni la joxe jox ko jaar bi ci des mu jox ko Senghor Senghor ñëw na ko danaa lii nga ma jox xam naa ne teraanga la waaye danaa jël lépp delloo la ko ci liggéey bii ngay liggéey Sëñ Tuubaa bu fekkee ne su ma amee li ma gënal du ma jot bu ma amee bu ma jotee réew mi du ma liggéeyal sëñ sëñ Tuubaa mii yàlla bu ma ko jot sëñ Fallou ne moom la de moom la loolu ki ko fekkee woon ci sëñ Fallou yónni woon ko mu fekkee jataay ba muy sama turandoo sëñ Modou Bousso Dieng moom ma ko wax Cheikh Abdoulaye Lahad nag moom maa fekk jataay ba ndax boobu fekk na ma dugg ci politique roñ ay nit yu ne fii ci Touba ànd ku ni wax góor góor gi Fallou Ba boobu sama waajur nekkagul PDS sëñ Daam Mbàkke laa fa fekk ci keroog ci tànt ma kon lépp fi la ma fekk Ablaye Wade ñëwaat lépp loo xam ne seq na ko ak Cheikh Saliou Mbacke loola ma gis nam te doxalee lépp fekk ma fi bala may ñëw na kii nga xam ne moom lan àndal mooy président Macky Sall dama bëgg yéen ñépp ngeen def fàtte gi sell ak fukki laxlaas ak benn ñaanal ñi nga xam ne jege na fi suñu borom yërëm leen muy une minute di amiin bu loolu jàllee ñu naqarlu ak métitlu ñii nga xam ne seeni alal yàq na ci ñu doon ay sénégalais ma jàpp ne ku war a tabax am réew war a liggéey am réew wallaahi rasim doo ko yàq ndax li ngay yàq boo ne am réew la ñor ba nga koy tabax bis boo ko jotee rek koo war a defar kon booy yàq li nga xam ne askan wee ko moom wala ngay déglu gone yi ñu di ko yàq billaahi am réew ñoru la yéen gone yi réew mii di Sénégal yéen a ko moom bu ngeen gisee suñuy dund ñun yéen li ngeen fi war a dundaat ci loo xam ne nii président de koo liggéey ci alalu réew mi du alalam alalu réew mi nga xam ne réew mee ko moom yéen ko moom képp ku leen di xiir la ci yàq ko bu leen leen bëgg na réew mi bëggul yëmut ci yàq li nga xam ne mooy alal réew mi président di tabax ñu yàq waaye dafa egg ci yàq li nga xam ne sax ay privé yoo xam ne ay sénégalais comme yéen seeni nijaay ak seeni baay ñoo ko liggéey ci réew mi ak seeni morom wala seeni mag ñu liggéey ko bu am ko mu doon seeni alal ah yàlla dogal ñu ci suturu ñu dem tey di ko yàq ak di lakk ay oto yoo xam ne seen i mag wala seeni i bàyyi ñoo ko moom kon mbir mi lan lay nuróoti la lan lay nuru fi mu doon duutu politique waxoon na ko ci Kër Massar ne baat bi may tudd waaye tey damaa àbb sama ko sëriñ bi dikk ci côté politique bi taxaw na ci Kër Massar ne gatsa gatsa gatsa nag ban koy xam heure boobu goree ma soo koo wax ci kanam mag mag ma da koy pes mag ma da koy pes bu ko waxee ci kanam mag tey bu demee ba ko yi di ko wayantoo ci dëkk bi amatuñu sutura bàyyituñu xel mag ñi képp koo xam ne yaa ngi xiirtal loolu ci gone yi wallaahi la sim abu réew ñoru la waaye nag danaa ñëw ci li li ko ñor ma leen di leeral ne kii di Ousmane Sonko li ko ñor du leen lu dul am ay lobby yu ne ci gannaaw ñetti lobby benn bi ci jiitu mooy lobby terrorisme ak salafisme ressources yi gis ne réew mi am na ko muy gaz ak pétrole ak yeneen ñooñu jël na ngir ngemb ko ngir mu taal loolu mooy di ko ñor boobu mooy mooy première lobby bi beneen lobby bi ci des. muy ay religieux chef de religieux yoo xam ne nii ay salawis lan lenn ñoru leen lu dul màbbu li nga xam ne moom la fi Serigne Touba defoon ak maam El Hadj Malick ak maam bu Kunta ak maam bu euh, say say say Seexul Islam ñoom di wax ne loolu leen ñor tey fexe ba nga xam ne lu fi suñu maam yi defoon liggéey ko ci lislaam bu tubaab yi xëyee ñu gont bu tubaab yi gontee ñu xëy. ba tey quatre-vingt-quinze pour cent nekk ay jullit loolu lañ bëgg a tasaare waaye du fi am de du fi masa am ndax ñooñu bari liggéey moom maama ma ngay nelaw ma ngay nelaw laa wax mi ngay xaran xam nga xaran xaran laa wax bi ko def mooy lan mooy lan xar jeex na kon tey bu fekkee ne dikk na ñu mel noonu ngemb ko mu wàññi ko bëgg a taal réew mi réew mi ñoru ko kon tey ñun ñi nga xam ne ay kilifa yi diine lan di ay chef religieux ñun ñëpp ñoo war a gën a jëg taxaw xam ne nag tey réew mi bu amee jàmm mag ñooñu ñoo ko def tey ku ne ngay yëkkati ay kàddu di saaga mag ñi ku ne ngi ay yëkkati ay kàddu di wax lu ne jëmale ko ci mag ñi te wallaahi la si tey réew mi bu tollu fii mag ñooñu la ma xam ne boo demee France wala Amérique. wala ña wala yeneen réew naar yi kenn ku ne yaa ngi yëkkati sa mag ca kaw teg ko ca kaw kenn ku ko tudd kenn du yaakaar naa tey ay Victor Hugo la ñuy wax ay Victor Hugo te ñooñu mosuñoo si teg seen jë ci suuf ay Martin nangam kenn mosu cee teg tey ñu koy jàngale ci àdduna bi kenn ku ne war leen tey sunu maam yi. jànkonteeg li jànkonteeg ngir réew mi lu ne bi def ko ngir islam am ay jàmm am ci tey ay doomi Sénégal yi yëkkati ay kàddu di ko teg ca lenn warul ko lu Ousmane Sonko ma ne ma bëgg wax ne leen du fi amee de bi du fi amee li ci des ma di leen ko leeral mu jëm ci salawis loolu yooyu ndax ñëpp xam nañ ne mbir mi rax na loolu ministre leen l'intérieur wax na mbir mi rax na ca rax dum rax tey jii bu yàlla dogalutoon président amuk dal ki mu fi teg di ko liggéey muy Antoine amuk dal billaahi réew mi tàkk na billaahi kon réew mi tàkk na billaahi kon tey li faatu kenn xamul lu mu kon ci tey kon ci tey dal googu ñu am directeur de police am ko général Moussa Fall ñoom am ko ni nga xam ne ay police leen wàcc ci terrain bi am ko ngir rek a bañ ci Sénégal tuur kon ñooñu war na leen a delloo njukkal waaye bi ci sama ñëw ci mu jëm ci dialogue dama dégg ñu naan dialogue dialogue dialogue man mi ñëpp xam na ne tey woo naa ci dialogue président de la république. ci ak dalam ak maanoom ak bëgg réew mi baax moo tax mu woote dialogue ndax ñi muy dialogal duñ ko mas a wax yëkkati kàddu na ko réew mi di Sénégal da koo liggéey kenn ku ne xam ne ni mi ngi liggéey kon bu ñuy dialogue lan la ngir moom mu bëgg réew mi nekk ci jàmm waaye nag dafa am lu ma ciy leeral képp koo xam bokkoo ci F24 ci bëgg a dem dialogue ubbi su suñu buntu demal dialogue waaw. waaye nag Ousmane Sonko ñoo lànk dialogue du am ci suñu diggante ak yow xamoo lu tax mooy yoon da lay topp ci yoon bi lay topp li nga xam ne moom nga jëflante ak yoon tey jii bu président na koy dialogue ak yow yow ci sa jëmi boppam ëllëg da nga naan complot bi ngay wax ak li nga xam ne moom ngay wax di wan ne président moo ne ci gannaaw loolu ngay dëggal moo tax kenn du la woo ci dialogue demal nga jàkkaarloo ak Issa li may wax xeran dialogue doo ko def koo xam ne yoon da koy topp yoon topp ko bu ëllëgee moom ci jëmi boppam mu taxaw fii naan complot ba ma doon wax dëgg la ci tey ca bu boobaa yoon duutu am ci réew mi ca ma jàpp ne rek xanaa moom ci boppam sax bu doon ñaaroon na ëllëg waxuma ci tey de parce que man yaakaaruma ne réew mi dana ko yore xanaa dana bëgg yoon am fi xanaa ñi ci réew mi bëgg nañ yoon di continuer di am ci yoon wi di am ci dëkk bi kon jaloot noo ko mën a def rek koo xam ne yoon da ko topp mu lànk ne di wuj yoon yoon ko nga dem kon bu yàggee yoon du am ci dëkk kon président exclure kenn président dàqu kenn waaye nag ku nekk ci yoon moom nañ ko bàyyi yoon loolu laa bëgg mu leer ñi naan président yor yoon mooy doxal yoon complot la mais ñëpp xam ne diggante moom Mame Mbaye Niang la nga xam ne moom la procureur demandé woon loolu ñëpp xam nañ ne bokkut ak lañ ko président bi tëjee arrêt daane moo ne dafa am lu mu demandé woon waaye bu ñi wax réew mi amul yoon loolu rek tegtal lañ ne réew mi ci yoon la dox kon ci tey suñ ko daanaatee ci aji saar wàññiku na noonu amut waaye première chose bi am kenn ku ci ne ci ñun ñii bu fekkoon da ngaa dem ba nekk ab opposant radical waroo dugg foo xam ne dana fay joxoñe loxo loolu rek moo njëkk nekk irresponsable ki tey yéen ñii toog am na place yoo xam ne du ngeen fa teg seen tànk ba naan sama liggéey day métti kon tey ku dem ba ne sama digg day métti du dugg ci place ba leneen fekk la fa booba ñu ko naan complot la ah nit ñi du ko mën a waaye nag réew mi dafa bari ay naa naafeq yoo xam ne gëmuñu réew mi ay nit nekk ci seen gannaaw ñu wàññiku li nga xam ne mooy yoon yoon du ko doxal ci réew mi ñu wàññiku ne loolu dañ koy dajji sànni fale ñaan yi nga xam ne sunu maam yi ñoo ko doon ñaan ci dëkk bi seen njàpp yi di sottiku ci suuf tey pétrole am fi ndox yooyee waññi ko doon pétrole ak gaas ñu waññi ko ne dañuy taal dëkk ndax loolu da ngeen koy nangu yéen ñi ma jàkkaar loolu da ngeen ko nangu yéen ko dégg yi nga xam ne yéen a moom réew mi ndax loolu da ngeen ko nangu kon il est temps ma wax ne réew mi duñ ko bàyyi kenn réew mii di Sénégal duñ ko bàyyi kenn à part aujourd'hui bay wax ne ñun responsable politique yi sañ Fallou yéen ñii ay ndaw ngeen sëñ Abdou Karim yéen ñii ay ndaw ngeen réew mi lii ci kanam ñun jeexal lañ yéenay ñëw ca bu terrain bi tàngee yéenay wàcc ci bi suuf man sëñ Modou Bara Dolly fii ci Touba maa ngi lay wax ne tàllal naa leen loxo. fu ngeen xuusee danaa ànd ak yéen topp ci seen kanam nekk ci seen gannaaw nekk ci seen kanam mun nga xeex ak président Macky Sall pour que dëkk bi mu war fee am ndam ah li may wax dama koy wax am na ñoo xam ne bu tàggee du génn du génn de waaye yéen ñii bu tàggee yéen a ngi ci terrain bi di génn muy yéen raw yi. kon nag li fi sëñ bi bëgg ci dëkk bii sëñ bi di bëgg ñu doxal ko ci dëkk bii ñun ñi ànd ak président Macky Sall ñu nekk ci guddi ak bëccëg tey jii li mënoon naa ko woote ci sama kër lan moo tax ma génnee ko Touba bañ ko ma tey sama kër yaatu na ma man faa woote lu ne waaye tey bu ma demee bay fay fii ab saal xamoo lu tax bañ ko ma jam baaraam ndax ndigal li Sëriñ Tuubaa di defar ci dëkkam mbele ñun yaa jamonoy sëñ Saliou sama waajur mi ngi mi ngi dund yàlla gudd fan yàlla fi yàgg maa toog moom ak ku ñuy wax Cheikh Jonn sëñ Saliou yëkkati kaasu kafe xel li jox mi ne dëkk bii di Touba yéen ñi ci bokk yéen yéen a war a jiitu ci si ndigal bis ba ma ko waxee ba léegi si ñépp xam ne ne sëñ Modou bu bal yi day tàkk mu génn ñëpp nga xam ne ne sëñ Modou day xeexal président Macky Sall ñëpp xam ne ne sëñ Modou ko am engagement waaye doo dëkku lu ne aaye ma di ko def ci dëkk bi di Touba billaahi du ma ko def kon ci tey yéen ndaw ñi yéen ñi nga xam ne tey engagé ngeen waxuma ko engagé wu de te dëgg-dëgg ko engagé waxuma ak yow ñi yéen ñi engagé fas yéene na maa ànd ak yéen joxante ak leen loxo wàcc ci terrain bi ñu fas yéene li nga xam ne moom la président liggéey si waa ca sëñ Mountakha wax ko ci président ñu fas yéene yàlla dogal mu am fi am man loolu mooy sama mission. waaye nag keneen ku ko bëgg a sa safaane ak bëgg def lu du noonu fas yéene noonu jàkkaarloo man ak koo mën a doon barki démb ku fekk Touba fekk sama kër na ma fa taxawee alhamdulilah yi man jaaruñu ko ñi may wax am na ñu ko fekkee. ñi may wax am na ñu ko fekk ndax damaa gëm na dara pesom kanam borom a koy fayu ah bu njaaroon sama kër du baax li may wax ne bu mu ko làqatu ko ndax kër goo xam ne ba ma koy tabax am wax di toogut bépp ndaw bu fi jaar ne da taal dara pour taal ko wallahi da boo sëggee doo sigi wat xanaa nga bañ ma faa fekk loolu leer na nañ kon nag li fi ne baat boobu ñuy wax naan gatsa gatsa ca ab sëriñ du ko wax tey sama casquette politique bi may ma mën a gatsa gatsa jot na nag bésum kanam borom a koy fay maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm wa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala